man la professeur Daouda Ndiaye maa jiite département bu parasitologie mais également maa jiite ñëpp luy saytu ci wàllu xam-xam ak jàngale ci wàllu recherche ci wàllu euh, infection génomique ci wàllu gènes yi maa ngi leen di ñaan ñu moytu coronavirus pour moytu ko nag am na loo nga xam ne ku ci nekk jun war nga ko def mooy nga raxas sa loxo ba mu set ak saabu foo toll dee ko raxas soo ko mënee boo amul saabu ak ndox nga jël ndox ak eau boo xam ne tuuti nga ciy def ci eau ak ndox bu bari boo ko mënulee nga am lu ñuy wax gel alcoolisé nga koy raxasu te lépp loolu mën a wàll mooy lu fooy laal nga raxas sa ko laalee bu fekkente ne nit ki daf la jege nga moytu ko parce que loolu aussi day joxe parce que virus bi li koy joxe mooy nga noyyi ko ci ku la jege wala nga laal foo xam ne am na fa nga jël ko jox dugal sa bopp te virus la boo xam ne day lor day rey donc ku ci nekk ñun am nga wàll boo ci jouer pour loolu te lépp lu kilifa yi digal ko borom xam-xam yi digal ko docteur yi digal ko dañ ci taxawu parce que loolu rek moo mën a tax ñu mën a aaru ci Sénégal ñun ñu aaru bi te Sénégal du dëkk boo xam ne am na alal am na kàttan corona bi teelul la jeex defe naa bu feebar bi ñun dinañu loofal parce que tey kër yëpp dafa ñu leen yore ñenn ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ginnaaw donc c'est extrêmement important ñu xam ne foofu lañ toll ku ci nekk daal nga xam ne feebar bi sa feebar la te dañoo nekk ci xare xare nag lañ toll xare boo xam ne ki ñuy xeexal gisuñu ko xamuñu ko mais ab virus la donc pour ñu daan ko il faut ku nekk ci ñun jàpp ci te jëpp ñëppay jàppee rek defe naa ne incha ko daan te feebar bi tamit ñu xam ne amul lu ko faj amul garab boo xam ne da koy rey amul garab boo xam xam ne day li fi am mooy garab yoo xam ne bu ñu la ko joxee mu jàppale la ba nga tane